man maa ngi tudd Soxna Faagee Ndiaye ñu gën maa xam ci Ndeye Ndiaye bëgg fàllu waaw maa ngi jógee Thiès màggal si ñëw ci Kazu Rajab gi euh, di ñaan yàlla yal nañ ko teewee at yu bëree bëri di santati bu baax sëriñ Fallou Mbacke di ziar suñu sang bu baax bii may waaj a ziar sëriñ Serigne Modou Xabbaan ibnu sëriñ Fallou mooy suñu sëriñ euh, comme niñ ko waxee rek Kazu Rajab moom euh, ku xam sëñ Fallou ak ni mu demee ci yoonu murid di nga ko bëgg ndax dafa am benn taalif moo moom. tuddee ko maa ngi cay wax naan kasu rajab yemook ndeyi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ba mu ganee àddina fa daaru salaam at ma yoneen ba jógee masjidul haram dem fa masjidul aksa keroog la riñaan yéeg al isra wal mihraj ca tukkeem boobee la jële ndigal ya juróomi julli yi mu def jox mbindeef yi sëriñ fàlloo di taal budul giim askanu mbusoobe la bokkal meen yàllaa ko tànn def ko coobareem lu mu ne na am loola daal di am sëriñ Fallou Kamal la Neex Mari Jaal la boroomi xar baax la lowoo ma jaal njabootu Bàmba gi ku nekk di waay waaye sëriñ bee yéeme bi egg ci doy waar ay karaamaam ci sunum réew egg na ba ca gànnaar ak bitim réew yéem na naari màkka ki jaar-jaar mu àggale jumaay sëriñ Tuubaa ji taxawu liggéey bi jox ko réew mi murit yi dëkkee nërëm nërëm sëriñ Falloo di boroomi ngërëm bàyyib sëriñ Mouhamadul Xabbaan donn na alaaji sëtub maaram tabe na lool te barkeem ba rëy na tibbal may ni ñu ay doomi Bàmba ñoo ngi ci sa keppaar nu ne galas xéewal yaa ngi ak ak bernde yi maam galas waaw yëg-yëg bañ daan yëg rek la ñuy am ndax euh, malgré covid bi ak euh, maanaam ni ñu ne nañ wàññi dajaloo yi teewul murit moom yëg-yëg rek lay am mooy euh, daanaka man duñu gis feebar ñun sëñ bi rek la ñu gis ndax boo fi ñëwee mooy saafara jàngoro yi mooy faj aajo yi kon daanaka gisuñu Covid te it ñëw fi dañuy ñaan rek yal na fi yàlla jëlee jàngoro ji képp ko nga xamante ni daan nga ñëw te ñëwoo ren rek bu déwee ne ñu fekkee ko ak jàmm ak salaam di leen ñaanal bu baax nag seen télé bi yal na jëm ca kanam barki Sëñ Fall waaw Fagey Ndiaye jóge Thiès. Euh, Sëñ Xaadim Thiam la Thiès laa jóge euh, Sëñ Fall nag moom mooy mburaake mooy géej mooy lépp moom moo jubal sunu borom moo waral bis bi ñu teew bi fi lañ jànge fi lañ defe lépp am sëñ Fallou ñu jaral lu ne maam dañuy dugg sax ci euh, barab bi romb suñ turandoo gisante ak sëñ Fallou dëpp sëñ Tuubaa nag lañ ñu tudde xam ne sëñ nag dañoo jaral lu ne xam nañ nag sëñ Tuubaa waaye lépp Cheikh Amadou Fadal la moom moo fi jële lépp xam nag bisam bii moom day bis boo xam kenn ku ne war nga fu mën boo nekk war nga fee jaar suñ fàllu nag moo jaral lu ne mooy lu ne ndax suñ fàllu bambara waa ba lépp daa jubag moom ñun moom ñu takk suñuy tànk ñu nekk àjjana tax ña ngay yëg suñ fàllu moo waral ñu ñëw ndax daanaka màggal bi moom wax dëgg yàlla dañ ne ku nekk na nga ko fa defee wante pas-pas bi ñu am ba ñëw yëg-yëg la moo tax ñu ñëw ndax suñ fàlloo ñu ko jaral ñun taalibe bi suñ xabaar mi suñ fal la wante wax dëgg yàlla ma moom yéege gi am ba ñëw na moom suñ fal dong ñu ko jaral romb nañ nag lu ne moo tax ñu ñëw dañuy ñaan ci bàkki suñ tuwaa ngeen dajante ngërëm suñ tuwaa maa ngi tudd Sinali Jara maa ngi dëkk Grand Dakar balaa jógal ñoom màggal si nii yéeg-yéeg bi ñu si am mooy ñun sën bi dafa nekk suñu xol dafa nekk suñu dënn bëgguñu leneen lu dul sëñ bi waaw moo ñu tax a jóg nii dañu newoon rek nañ ñëw ñëw siyaar si ñëw siyaar par yàlla ñu tomb fekk julli tisbaar bi ñu julli fi na alhamdulilah fas yéene dagg nii pour dem ñibbi nii. moom xam nga bu ñuy wax ay jikkoom moom duñ fi jóge bu ñuy wax si ay jikkoom yi nga xamante ne parce que sopp bi ñu ko sopp rek waaw moo tax parce que dañuy judd gis ay jaloor yu mu fi def yoo xamante ne dañ ko liir ay mag xamal ñu ko donc loolu lañ ko bëggee parce que nit boo koy bëgg dañ koy bëgg si jikkoom sopp ko si si ni muy doxee ak ni muy doxalee te comme ko nekk da doon fédéré tout le temps loolu moo gën a tax ñu sopp parce que nit boo xamante ne fédérateur la kooku ko nga koy sopp waaw lu muy fédéré nag loolu moo tax ñu sopp ko bëgg ko yaakaar ko tamit. waaw sant parce que màggal moom du lenn lu dul nga ñëw ci dëkk bi siyaar ak mbokk taalibe yi ñu ngay partagé ak bonheur bi nga xamante ne moom nga fi fekk ni je pense que loolu mooy l'essentiel bi quoi ñaan yàlla ñu yàgg ko yàgg màggal si ay année yu bëri bari bari bëri wax dëgg yàlla sant nañu bu baax sant nañu bu baax.